dañoo ñëw tey pour tontu foog naa ci affaire bi nga xam ne moom la yaayaa def ci Dakar ak wane ne président d'accordul ci li mu def tey ci assemblée nationale d'accordul ci li mu def ëllëg ñun nag Koungheul lépp loo xam ne président teg nañu ko dañ koy nangu dañ koy assumer ndax tegal nañu yaayaa ñu woteel ko te bëgguñ ko kon bu ñu tegalee leneen dañ koy nangu yaayaa nag man li ma gëm ba gëm ba gëm ba gëm mooy li mu def nii dafay làmbatu rek mais du APR te am na leneen lu nekk ci ginnaawam du APR parce que li tax du APR mooy bi ñuy sos APR am na ñoo xam ne ñu ngi kungal tey boo leen laajoon ñu njëkk a jaay carte APR Yaaya Sow gisu ko. ñun ñi nga xam ne ñoo gëmoon Macky Sall démb ak barki démb kungal ba léegi ñu ngi ko gëm parce que Yaaya yóbbuwuñu ci Macky Sall Yaaya dugaluñu ci Macky Sall Macky Sall nag liñ koy wax mooy di ko di ko remercier di ko sant. ci naka mooy li nga xam ne projet yi nga xam ne daf ko commencé au niveau de Koungheul mu yeggalul ñu ko ci jàmm mais ñun lii nga xam ne moom la euh, honorable député Yaaya soo wax moom la engagé te nag lii ñuy wax nii dañ ko wax pour alerter parti bi bu xuloo jotee danañ xuloo bu xeex jotee danañ xeex ak moom te moom xam na sax li koy xaar ak Koungheul tout récemment dafa waroon am leneen lu mu xalaat parce que opérateur yi mu doon sëpp di leen xas moom moo leen gën a bon mooy asaka opérateur yi ndax ren engrais gros producteurs yi ñu ko jox région de Kaffrine benn benn saako engrais duggul ci région bi xaalis la indi di rembourser nit ñi saako mille deux cent cinquante preuve yu leer du accusation sax dama ko awma lu ma ciy daw te loolu président bi mu koy def daf ko def pour mu dem ci askan bi président yëgu ko agriculture lay jógee ñu jox la sa bon sa agrément notifié la nga dem moom boo goree yow yaay def liggéey bi war boo gorewul nga sàcc askan bi moom nag détourné na na engrais nit ñi dem jaay ko xaw ma da koo jëndul xaw ma da koo jaay ñëw di rembourser nit ñi saako engrais mille deux cent cinquante bu paree mu facturer dem ñu fay ko ay millions mu def ci poosam kon kooku bu ne baaxul président baaxut moom moo baaxut ndax moom bu baaxoon li ko président yoon ni mu mat beneen bi daf ne dafay wéy ci dëgg dafay dox ci dëgg mais du nitu dëgg du nit ku wër du nit ku franc lobbying bu muy wax tamit lobbying am mooy tas ci palais ci palais ba lobbying moo tas mais bi muy bokk ci lobbying yi muy accusé noonu boobu waxu ko xam naa ko bu baax dëpp mu nekk xale bu ndaw lépp lu mu la wax nekkul ci moom wor ak tappale ak fen mooy liggéeyam kon li ñuy wax daal mooy président na bàyyi xel bu baax ci Koungheul na bàyyi xel aussi bu baax a baax a baax daan nañ ko ko wax mu ne sama pël bi sama pël bi mais xamul bu ci yem